ko sama jabar takk ta nekk ak moom jënd kër gi mu jëndee kër gi indi ko ci kër gi ñu nekk kayitu kër gi nag ma jël ko def ko suma suufu lal ndax wóolu naa ndaw si waaw ma koy defee nag ah toog daal diggante bi am problème ak waa ji ma nekkaloon ma war ñëw Dakar wut ci avocat ah, ma xool suufu lal bi doon seet suma kayit personnel kër gi mooy sarse bi ma ne ko waaye sama kayit kër su man de gisuma gisuma bëgg ma ëppaloo lam yi waroon naa ñëw Dakar dayeg sama avocat à six heures ma dem ba ci yaayam déclaré ko yaay ji xool ma ba seppali ma dumóoyu ma ma ne ko nag dumóoyu ma ci àddina mu dooma dumóoyu àllaaxira après ma dem cadastre bañ ko woon dem ci directeur ba Alsaan Ndiaye yaa na ko yàlla yërëm dekk ni ko sama jabar di fam na sama kayitu kër mhm. aw ma di ko réglé ndax dafay dem Dakar ñu ne bu ko fi indee daal ak fu mu mën ci jaar mayu ma ko saraxu ma ko lebal ko fab na ko daal daal di continuer ñëw Dakar moom mu ñëwee Dakar nekk ci diggante yi nekk ci diggante yi yàlla def atelier ba këj ma transféré ko Dakar ma ñëwee Dakar di lijjanti liggéey di lijjanti liggéey lijjanti liggéey diggante bi am na sama benn xarit ngi fi nekkaloon moom nag déclaré woon naa ko moom it affaire bi ah ñu toog toog toog ma nekk Dakar bi di nga jóge jóge ji daan jóge ji daanu ba booba en 1984 la woon liggéey na ma liggéey boo xam ne sama xel nekkatul ci kii bi mais yëpp maa moom ñii ci kër gi am bés na en 2005 falaa ayade falaa fanaan suma bët yi commencé may ànd ak moom mu naan ma demal seeti fii demal xooli fii demal xool ba mu wóor que ni nekk sama bët yi sugg na fa laa aye ma jóge fa ñëw ndakaaru ñëw ndakaaru ñëw ndakaaru après un mois deux mois samay doom yoo xam ni juru leen ndekete moom commencé na toj kër gi commencé di toj tëj ñu toj nañ def lu nëbb tëj buntu bi yóbbu liggéey nag day tëj sama doom fexe ba ñu wax ka kaw gëmu ko mu dem ba gis ko waxuma ko ñu ma téléphoné wax ma ah papa dem bëggee ngay toj kër ga da ngay ah, dara waxante wuñu dara xanaa kër boo nekkee sa jëkkër même boo moomee kër gi boo koy toj xanaa daani sa jëkkër maa que maa ngi loo xam ne moomu ni ko waaw ngi toj sama kër kayit a wóor man ko déet bul toj maa ngi dama kër yi a wóor kayit war am naa kayit ah baax na te laa jóge nag jukki sama bopp jukki sama bopp ñaandu ñëw ndar ma demee sama jarbaat bu doon seeg doomam ma wax ko mu boole ma ak benn huissier ma dem ci huissier bi wax ko yëpp mu enquêtel ma témoin benn magam bu yox màggat ja la jëloon témoin kooku ba mu ko enquêté daf ko ni man kat xaw ma ci woon loolu sama rakka daal ñëw na ma woowal ma rek ma ànd ak moom seedeel ka am keneen kuy wax taala ñang dafa daan jaay pièces détachées moom itam wax loolu après nag ma dem urbanisme ndeke urbanisme nag bi ñuy recensé Pikine dañu doon recensé ba ñëw ca kër ga bañ dikkee nag ndaw si ni moomoom kër gi waa ko bi ni leen nag moomu ko de kër ma ko moom mais moomu kër gi moomoom sama jëkkër ma ko maye moo ma ko may maa ko maa ko moom sama jëkkër ma ko may urbanisme nag ngi doon recensé jël kayit épinglé ko turam def turam épinglé ko sama kaw tur ñu ko alors bi defee enquête bi nag maa itam ñëw dem dem kayit yi dem urbanisme directeur urbanisme woonu ñu daje Pikine ci bureau ba wax wax wax wax réunion waxante waxante ba directeur ba ci boppam li man ndaw si jubul moomu ko léegi man sama yaay dafa feebar damay dem Kolda su ma ñëwee nga seet si ma ma toog ba mu dégg ni ñëw na ma dem fa seeti ka ma ko seetee nag ci diggante bi doomu magam ji dafa nekk un gars influent docteur le politicien influent dem ci directeur urbanisme moom itam xaw ma lu waxante ak moom ba ma dikkee directeur urbanisme changé avis ñi ma léegi xam nga ñoom joolaa du du du nëbb ma docteur Dia ñëw na fi wax na ci moom itam di wax na ci wax na ci mu ne comme docteur Dia wax na ci léegi man mënatuma ci dara ca laay na nga xamee ni kii du gaaw sotti noonu ma ñëw Dakar am sama avocat jël ko jox ko. léegi ndeke moom may commencé tabax sama avocat ni ma léegi nañ attaqué fekk diggante bi urbanisme wax naa leen ko. urbanisme dem ba ci moom ñu ko kër gi arrêté liggéey bi dafa nekk coox arrêté mu ngi liggéey guddi ñoo arrêté waat arrêté loo ko bind ko lettre këyit waa ngi ci dossier bi bind ko ni ko arrêté këyit bi mu bañ après mu dem ca chef de quartier ba xamul mu commune ak moom entre temps nag urbanisme dem na ñu indi fa droit à la vie société la ñu jox gérance Pikine alors ñooñu fa nekk nag alors ndekete ñoom itam am naa ñoom combine ak chef de village bi alors ñu doxal jox ko carnet ba pare ni léegi da ngay versé boo moti leen jox la titre foncier ñoom daal reconnaître nañ ko moom alors ma ne pat sama avocat ma ne léegi bu ci toppatoo yooyu yëpp lañ toppatoo yoon rek après avocat bi ñu def jugement pour arrêter travaux yi tribunal condamné arrêté travaux yi mu toog mu ko naat bi liggéey guddi mu constaté yëpp waaw avocat ne léegi bu ci sonn nañu topp jugement bi rek bu ko buñ ko gañee day génn yëpp après ñu defaat beneen deuxième jugement bi premier jugement bi huissier ñëw huissier dem dañ ko layoo ñu ni dàq nañu sama wax mais ñu waxu ndaw si xam nga loolu sottiwul